ñu xam ne ab jullit du romb dara te xoolu ca kàttanuk suñu borom gi ak ab joxañam mbas mi nuy wax ci réew mi diggante démb ak tey yàlla wax na ci ak jullit yi xamal leen fan lañ war a taxaw démb ki doon lim nee na juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent àndal nañu ak seen sago wér nañ juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent nag muy 99 ñiy seetlu gis nañu ne tënk nañ ay melokaan yoo xam ne dañ ne melokaan yi suñu borom lañ muy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent tey ci topp ñu ne téeméer ak fanweer téeméer ak fukk ak ñeent ñoom it àndal nañu ak seen sago wér nañu téeméer ak fukk ak ñeent adduna bépp fi alxuraan nekk fépp kenn wuute wut ne téeméeri saar ak fukk ak ñeent lañ tënk ne mooy alxuraan waaye bis bii nga xam ne it moom la ñu nekk juróomeelu fan la ci aw weer lu ci nekk di joxoñ boo xam ne jullit moom mën naa bañ a jaaxle fu muy teg tànkam wala fu muy teg gëtam ba fakkatal di ko ca fekk gannaaw démb juróom-ñeent fukki tur ak suñu borom yi ak juróom-ñeent la ñu yàlla doon fàttali tey mu fàttali ñu alxuraan fàttali ñu waaj ñu fonk lislaam yi juróom ak julli yi juróom na ca jullit yi sax te bañ a geestu te bañ a xool kenn wala fenn yal na nu ko yàlla jàppandalal tomb bu ñuy fàttali nag laabire lay doon bokk yi dafa am fan yi ñu jàll yépp yàgg na waaye gën naa fés ci ñoo xam ne li leen gën a metti mooy nee nañ joxoñ bi ñuy joxoñ Tuubaa ñoom it ñu taxaw temm ci ku joxañ Tuubaa ñu jéem a banque joxañ ba déedéet labiré gi mooy de noonu bokk yi matt nañ saab nopp wolof nee na du taaw bu wax am na lu tax ñu matt noppam matt nañ saab nopp wolof nee na du du taaw bu wax wax du ca tàmbalee am na lu ko jiitu waaye nee nañ ngan su yàqoo it gunge du ko defaraat bokk yi sax bu ñu waxee Touba bu ko nit gën a xóotal waxi suñu boroom daf ci feeñ bu ma nee Touba nag jubluwuma ci Touba bu tàmbalee fi yem fii rek waaye fépp foo xam ne ab jullit dafa nekk te ba mu fay sanc jaamu fa yàlla képp tax ko faa dem day bokkaale ci wax jooju tànn ko suñu boroom tànn yàlla wax na ci alxuraan ne moo bind lépp néewut ñëpp de nekkoon ci nit ñi lay yam waaye lépp nit ñi bokk ci waaye nag ci coobareem bi mu leen binde ak kattanam ci lay tànnee lu ko ca soob ak ku ko ca soob ak ñu ko ca soob rabbuka yaxluqu ma wa rabbuka yaxluqu ma yashaa wa yaxtaar maa kaana lahum alxiyaratu min amrihim kon tànn gi yàlla di tànn lu ko soob bu ne woon man yasha u nit ñi lay doon waaye ma yasha day boole waale suuf si li muy yaatu yaatu am na fu ca yàlla tànn mu gënal ko suuf si ci des donte moom moom lépp lii suuf si yaatu yaatu bu ko tànnee suuf it ci biir suuf si dana amaat tànneef noonu la ko amee ci malaayika yi am na ñu ko gën a jege ñi nga xam seeni tur ak ñeneen ñu bari ñoo xam ne waxul seeni tur nuñ tudd yonent bi jàngalewu ko waaye am na ko ci ay anbiya ak i mursaloon ñoo xam ne ñoo koy gën a jege tudd na ci alxuraan lu mat ñaar fukk ak juróom ñenn ñi ne ëpp na ko moo xamub lim nu mu toll waaye gisaat nañ ci juróom yu mu tànnaat yoo xam ne ñoo gën a siiw ca ñooña waaye ñooñu am na ku leen jiite kon tànn na tànnaat tànnaat noonu itam lay tànne barab yi am na fu ko ci gënal am fu ca topp am fu ca topp tekki wut nag ne fa mu tànnut daa amut solo waaye moo ko noonu la ko soobee moo ko wax maa yasha bokk yi ñooñu nañ muñ te xam ne li féeg waxaguñ ci Tuubaa ne kuñ jaay bul jënd te bu leen kenn jaay bu metti kenn suñu àggee ca foofa it bu metti kenn ndax xam nga ne ngëneelu Tuubaa doo ko dendale ak ba yonent bi nekkee Màkka ndax kii nekk Tuubaa ka nekk Màkka la def wasilaam te waa Màkka xëy nañ xëy na bu kenn jaayeeti yonent bi ak ñi mu àndal bu kenn jëndati ci ñoom bu kenn takk ci ñoom soxna bu leen kenn may soxna ëpp nam at ñii ne ñaari at ñii ne ñetti at waaye daal ëpp nam at moom lum néew néew ëpp nam at te lu ëppum at mën naa doon téeméeri at sax te jotiwut ak ñoom lenn lu dul daal mi ngi wax loo xam ne ki ko koy wax loo ku mu wax loo nga wax bëgguñu koo dégg ñu dem ci ku ko jege Abu Taalib mu ne ko tey ngaa noppi mu ne ko li may wax du samay wax ndigal laa ci am mu ne kon li ma la ci mënal mooy aar la kenn du la laal feeg maa ngi fi waaye daa tax jullit dellu gannaawa déedéet wàññiwu leen dara waaye li feeg waa Tuuba agguñ ci fuñ génn ñu di leen sànni xeerit war nañ koo mën a muñ ndax mënuñoo toll jéem a tolloonte yonent bi ci ngëneel mu leen gën ñoom ñëpp waaye lu mu jotoon ak waa Taif bañ yabal ay nit kenn ku nekk yor li mën a yor ci ay yoxoom ci ay doj yu sew ak yu mag di ko jëmale ci jëmmi yeneen ci ba ñam àndaloon waaye ba yàlla wax yoo yonent bi ne ko loo bëgg ci ñii dane ko yërëm leen bàyyi leen fi ndax ëllëg gi si biir man nañu fee jaboot njaboot gi jàpp li may wax gëm ko teg ci seen tànk te loolu àgg nañ ci fi mu ne nii waaye bokk yi suñuy wax Tuubaa faw ñu tudd jëmm jëmm joo xam ne ku ku gis ab portaleem sa xel dem ci Tuubaa walla ñu tudd Tuubaa sa xel sam xel dem ci portaleem kooku la mbir mi topp moom ci boppam la mbir mi topp ndax bu ñu jàngee bataaxal bii nga xam ne daf ko bindoon Sëñ Fallilu Mbàkke di ko ci dénk nu mu war a mel ba àgg ci ni mu bëgg mu mel ko danañ xam ne yàgg naa bëgg lu kenn mënta am daf ko bind ab bataaxal di ko ca dénk nu mu war a mel ba mu sant yàlla julli ci yonent bu noppi def ko ne amma ba'd falaa yaxurrannaka yaa bunay xiilu naas xiilu naas yaa sayidana wabna sayidana wabna sayidina fa inna afdala siyaadati ma ktasabtaha li nafsik laa ma ktasabaha laka aabaun wa judud wa inna alfaxra fi la fi l afaali wal aqwaali laa fi l acmaami wal axwaal wa inna alsharafa fi lhimami alcaaliya laa fi lhimami albaaliya li anna sharafa alacraaqi yaxtaaju ila sharafi alaxlaaqi wa lidaalika qaalu laa xamda liman sharafa nasabuhu wa saxufa adabuhu wa qaalu kun cisaamiyan wala takun cidaamiyan fa inna cisaaman huwa alqaa'ilu nafsu cisaamin sawadat cisaamaa wa callamathu alkarra waliqdaamaa wa sayarathu milkan humaamaa daf ko ne yow sama ndoom moo taxoon mu xëy bis ne jaay naa ko njureel ga da ko ne yow sama ndoom bul waru mukk de mu ne ko waru ci misaal laaju xel seytaane dana ko def nit jaare ko ci bakkan bànneex ak àdduna mu ne ko ci nit ñi laa wax bu mu la war mukk ba nga jéem a teg sa tànk foo xam ne tax nga teg ko fa mooy ñaan la yaa sayyidi yaa sayidana wab na sayidina sama sang sama sëriñ sama doomi sëriñ kese ñoo nag bu mu la war mukk ndax sayid ki ñu koy woo ki ñu koy wooyee muy dëgg mooy koo xam ne lam am moo ko wutal boppam moo ko kaññe waaye doonut loo xam ne da nga ko donn rek naan sama baay sama baay wala sama maam sama maam dal ko ne ndam dëgg bi ñu ko dee séentu ci nit mu nar koo am ëllëg nañ koy xool ca lam jëf ak ca la muy wax waaye kenn du ko xool ci kan mooy ay baay taxam ñi bokk ak baayam ñan lañ ak ñi bokk ak ndeyam ñan lañ dal ne ko soo bëggee mel nu kenn melu nag da ngay dox dox yoonu kenn mus sa dox fent sa yoonu bopp te fekk ba nga koy laata fent xam nga fa nga teg sa tànk fan la ak fa nga jëm ak la fa nga bëgg a dem ak na nga ca bëgg a demee ndax kat bokk ci yax bu rëy baax na lool waaye yor jikko ju rëy ko gën lu nit baax baax aw askan jikkoom doye di walla ab yaram nee na accam rek da ngay fexe ba nekk def la ku ñuy wax Isaam waxoon Isaam nee na xista bu gudd la waaye nee na da ngay fexe ba nekk Isaam te bañ a nekk Isaam mooy fexe ba taxaw yow ci sa jëmmi bopp te bañ a sukkandiku rek naan sama maam sama maam walla samay baay walla samay baay kese kese loolu nag bu ñu ko déggee danañ xam ne kii doon wax ak sëñ Fallu teel naa xool bëtam fu sori ba mu xëyee xëy jàng ñu ne ko nit ki lu moomul na ko fa bàyyi waaye juróom bu góor nee na ko jox ma ca permis ab bant ma sot ci xalima xamut ku moom permis mu ne ñokket dem wuti bant boo xam ne yàllaa ko saxal ci àll bi rek sot ba mu jekk mu jox ko Mamour Anta Sali ne kam toogaloon gis nga ko de ci sam moom de permis ma ne ko jox ma ci bant la xamut ku moom borom permis mu dem wuti bant yi nga xam yàllaa leen moom ku tàmbalee wax lu kenn xamut nag faw la daloon yonent bi dana ko dal sallallahu alayhi wa sallam waaye jar na ko ci jullit nag rawati nag xëy xëy wan gannaaw li na ci àdduna ak ña ko yore ñépp ba bind ko ba mu fés tur wu nekk woowee nañ ko ko tur wu ne woowee nañ ko moom sax moo bind ne xaalu safihun ba xasida ga àgg kii daa dese ku dese bu ñu demee ci alxuraan baatu dese ci wax ji muy binde fala doy dal nit yam wa ida qila lahum aminu kama amana annaasu qaalu anuminu kama amana sufaha ñu tuddee ay sufa ay sufaha moom kon tekkiwuñ dara ci mbir mi nee na wax nañ ko ko bis te yàqalu ko dara waaye bi muy sañ ci Tuubaa gi ci boppam it wane na ne am na fu mu bëgg a dem bëgg na faa dem lam dénkoon suñu fallu ci fexeel ba taxawal sa bopp mënoon na dëkk Mbàkke Kajoor ba faw mënoon na dëkk Mbàkke Bawol Mbàkke Kajoor bàyyee ma ko fi yóbbu waaye jëlee ma ko fi yóbbu Mbàkke Bawol ay maamam ma ko sañ waaye daf ko fa ne ñukk dem Daaru Salaam coow la gën a nom coow la gën a nom lii teg fa la ne faw moom dañ ko mas joxoñ naka jekk takkalu na ab néeg boo xam ne la ci ëpp moo wut ñax ma moom rabatlu rabat woote am rabat woote teglu ay néeg teg maanaam yëkkati néeg bi teg ko ci kaw jën yi am ci néeg bu mag boo xam ne juróom benn koñ la ñett ñu dafa nekkoon ñuñ xam seeni tur mu ne ku ma ci dimbale tegle ma ci néeg ndax daa bëggoon a def ba mu niroo kër mu door koo yëgle ñëpp dégg ko ñooña nangu ñeent ak moom te néegub juróom benn koñ la mu ne jàpp leen ñu ne ko déet yow ko doo jàpp am ku ne ko ñun de ñett lañ xam nga ne at nuy néegub juróom benn koñ mu ne waaye yàlla baax na daal ko ne yow xanaa mën ngaa defar puj bee kon mën ngaa yéeg defaraat puj bee mu ne ko mën naa ko moom mu ne ko yéegal mu yéeg mu ne gaa yi yëkkati leen yéen gaa yi yëkkati mu mu roof loxoom mu mel ne juróom benn nit dafa taxaw kooku ne ko mënoo ma woon a wax sa bopp mu ne ko arab nee na nit dëgg-dëgg du ne man a man a man a waaye dañ naan mooma mooma moo tax bi muy sañ ci Tuubaa daf cee ànd ak xel mu dal alhamdulillahi alkarimi dil minan ala ishtigali bi furudin wa sunan shakartuhu li annahu qad saaqani li watanin bihi nafa maaqani foo xam ne kenn la banka sa tànk yàlla jox na ma ko bisub tey mufawidan musalliman ilayka amri muhajiran lima ladayka thumma ilayka laa ila siwaaka xat surtout lamma lam ajid sharwaaka bis ni ki tey sant na yàlla cant goo xam ne gii sant guma ko ko woon te gu ko raw it gu cay dolli ko la waaye gu ko raw mënatuma ko ko sant ndax wutal na ma barab boo xam ne bi kenn dana banka sa tànk waaye ba mu ko sancee ba amub diir la ko ci yàlla nattu moo tax ku tànn ci tànn suñu borom bi ba dëkk fi faw ngay dégg di daj ay nattu yu metti yoo xam ne bu mu la tax a tayal bu mu la tax a bàyyi ndax looloo ko sanc lu nekk lam juddu ca lay màgg ca lay dund lenn lu juddoo ci ndox ab di lab ci ndox amul fekk mi ngi dund lenn lu juddoo ci ndox di lab ci ndox dee amul te fekk ma ngay dund booba ba mu cay dugg moo tax suñu borom subhanahu wa taala tudd na ay dëkk yoo xam ne ba muy tudd dëkk ba suufu kese si taxut muy wax nit ñi dëkk ci suuf sa moo tax muy wax am na fu muy wax ci alquran walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamai wal ard dëkk bii yonent yàlla Shuayb di wootee ak a neexoon ñëpp nangul ko suñ ko nanguloon duutuñ xam maral barakati min sama am nañu ko firee am ndox taw suuf si was min samawaat min sama wal ard suuf si am nañu ko tuddee ne mooy li taw di ñoral suñ ko nanguloon lu néew néew rek dara dutuñ jeexal dara kon ahlul qura ñu dëkk ci dëkk moo ko tax di wax waaye am na fi wax ci alxuraan alxuraan it naan daraba allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainna يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون نانا مكة لن تجبلو مكة لا تيونت بي صلى الله عليه وسلم دي نيو لو مصيبة مسا باري باري باري باري دانا كو تيغ ndax ñepp ko maasé won na ñoko mom gëm ko seen yàlla fa nekk seen alal la fa nekk kon kenn du ko yàq waaye nee na bi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ñu ne ko du fi amee teg ko am ndax fu mu jëm ñu ne du fa ña ànd ak moom fu mu jëm ñu ne du fa yonent bi daf ne yàlla tey nga ma wallu ci sama bokk yi kero la tàmbalee maral ak xiif fa adaqaha allahu libaas aljuuci wal xawfi bima kaanu yasnaun la ko waral mooy wa laqad jaahum rusulun minhum fa kadabuhu fa axadahum aladabu wa hum zalimun kon waa dëkk ba it moo tax yàlla di wax waaye du jëmi suuf sa kese kese waaye ba muy wax ci niti sayidna luutin alayhi salaam it daf ne inna munziluuna ala ahli hadihi alqaryati rijzan min alsamaai bima kaanu yafsiqun dana wàcc ci kaw waa dëkk bii mbugal mu metti faye leen ko ci lañ doon def daan na it yëmu ci dëkk booba kese walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan li qawmin yaqiluun képp koo xam ne da ngaa ànd ak ki yàlla ne nañ ànd ak moom it ne la wóonu coono bu raw ba koo ko ànd ba koo ko doon ka yàlla yónni woon dajit soo fa bëggee nekk da nga ko daj waaye faw nga muñ ko moo tax sëriñ bi li muy jàngale jikko bind ci benn téeréem néew ab waykat a ko wax nahju qadaa il xaaj ولقد أمر على اللئيم يسبني وأعف ثم أقول لا يعنيني bari waana ku ma romb di dem mu teg kàddu yoo xam ne lam ci bëgg mooy ma dégg ko dana ko dégg de ndax nopp yi ngeen yore laa yore di am naqar ñi ngeen koy naqar loo waaye dama naan kii daal damaa yaakaar ne waxut ak man su demee ba naan ba ne ma yow mii lay waxal ku la mooy ma ne ko jégal naa la kon boog suñ ko fekkut ci kaw suuf léegi tey fekk ko ko fekk jafe it téewut ñu war a xam ñam fi nekkaloon ak ñun ñii fi nekk ñu xam ne ñun dañoo war a def lu ëpp la ñoo ngi defal bokk yi bi sañ ñu dégg ñuy séddale loo xam ne dara gënu ca waaye amul benn bis bu ñuy jéggi Tuubaa ne am na benn bis bu ñuy jéggi Tuubaa amul moom lii jaaxal waa Tuubaa fii ne mooy ñu séddale sédduñu ko ca dañ naan tay de sédduñu ñu te dañuy metti lool ndax dañuy bëgg ñu dëkk Tuubaa fu mbir jagadee ba kenn soxlawu ko nañ ko indi Tuubaa dana jag ndax moo ne woon wal tudxilil musliha fii yaddi wa fii daari wa thabitanhu bil haadil wa fii fépp fu dara nekk te kenn soxlawu ko fa na ñëw Tuubaa bu ñëwee Tuubaa yàlla maa ngi lay ñaan lu fi ñëw rek jag moo tax ku fi nekk wala mu nekk fépp foo xam ne ka fa sanc yàlla la fa doon jaamu na xam ne faw ñu di ko teg ay baat am na kilifa gu ma wax ne lenn daal la dégg la déggagun moom ñu wax ko ci Tuubaa mooy waa Tuubaa léegi jigéen ñi ñooy ëmb waaye suñ wasinee góor ñaa leen di nàmpal ndax góor ña dañoo yori ween ne jigéen ña loolu moom na ci xel dal ndax loolu ku ko wax nit ñi bala xam ne yow mi yoroom xel ndax ku jàng mantiq am na ci àtte bu ñuy wax tanaqud tanaqud mooy nga ne kër di ñëw jigéen la bokk na ci ba mu ñëw ba toog botti doomam teg génne wenam di nàmpal nga bëgg a gëmloo nit ñi ne kii doontul jigéen la waaye góor la maanaam xeli nit ñi ñooy ñooy jëkk a lànk te soo yeexee ñu wax la fa loola naqari moo tax lii sëñ Musaa Ka waxoon ne sëñ bi nee na mooy nama dalub jullit yëpp nama dal mooy ñi daan yanu ay saako di daan seen doole mu lew lool nga xam dañ naan ñii di wàcce saako yi saako bu bu bu waaye di yennee rek na ma na ma ko na ko teg sama kaw attan naa ko xanaa xamuñu ne daare kaamil yi nii mu saxe daa am sabab sëriñ bi xëy xëy benn bis wére di lool ba tane loolu ak nit la nit mooy wér di wére di day dal yonent yi dafa dagan ci yonent yi ñuy wér ak wére di bu dul wére di gu leen guñ leen dawee néew ma nag ab yonent la te duma ko wax maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullah wa xaatama nabiyyin waaye daal ba mu ci jógee daf ne day sant yàlla ndax daa ñaanoon yàlla natt bu ñëw bu nar a ñëwati jëm si ci jullit yi jullit yépp fu ñu mën a nekk su munta ñàkk ba munta ñàkk wàcc yàlla na nga ko jox kàttan gu nga ko mën a dékkoo ñi ci des ñëpp mucc mu ne ko loolu lu yomb la lu yomb la li ko yombal mooy yow daal bis bu set fexeel ba foo nekk nañ fa jàng alxuraan rek moo tax ca gànnaar ba fii mu nekk ba mu nekk gànnaar léegi ëpp na téeméeri at boobee ba fii mu nekk amul fenn fu ñu koy tudd foo xam ne du ñu fa jàng lu mat juróomi kaamil ñeent ba juróomi kaamil bis bu set ñoo xam ne loolu mooy seen ab liggéey loolu mooy seen ab liggéey daanañ toog bisub lëm bis mooy guddi ak bëccëg kenn du lekk kenn du naan ndax amu fa waaye bu génnee bay tàmbalee waxtaan ak ñoom ci yàlla nee na yonent bi nee na ñëpp fàtt seenu xiif fàtt seenu mar su fa dara amee bañ di ko joxe tuut lay doon ci loo xam ne lii bu doon suñ jamono koo ko jox mu sàkk ci pexe ndax cere joo xam ne xamoo ko lañ ko toggoon wow koŋ su doon suñ jamono koo ko jox mu wuti ndox wala mu wuti meew waaye noonu lañ koy téye di xool ku ko soxla ni ñoom ku leen ko gën a soxla ñu jox la ko kon boog nañ xam ne yi ñuy wax mu jëm si Tuubaa lu neex waa Tuubaa la lu nekk seeni xol la ndax xam nañ ne duñu àgguñ fa sëñ bi toll woon ak ñam dajeeloon jamono li fekk jàppuguñ waa Tuubaa yëpp atte leen war leen tëj fanweeri at ak juróom yi ñu tëjoon sëriñ bi àgguñ fañ jëm waaye bokk yi ñu xam ne lu ñuy séddale te kenn soxlawu ko ci réew mi dañ ñu ko andil Tuubaa soxla na ko loo sax te yàkkamti ko su ko defee ñu xam ne daawa ak diaaya moo am ci kaw suuf daawa mooy li yàlla du yónni yónent yi nga am layu leer ci mbooleem la muy àndal ak ak xereña gu ma sëkk mooy daawa kooku lim gën a bëgg mooy ñëpp yëg ne diw ñëw na def daawa moo tax yónent yi daan dem fu nekk buñ fa waxee bu bu ñu leen fa sànnee xeer du tey ñu demaat fa li fekk nit ña nanguwul ñu leen di wax muy daawa kon kooku ku ko siiwalal ak daawaam yaa ngi koy dimbale te am na ci tudd goo xam ne da nga koy tudd nit léeg-léeg defe ne da nga koy ñaawal te fekk da nga koy siiwal faw am ñu jóg wëri ko ba xam ñi lu leen dal faw am ñu ko dañuy kumpa loolu lu baax la diaaya it ñi yore ay société ñëpp dañ koy def mooy publicité bëgg ñu dégg la xam ne nangam nga yor di ko jaay barab sangam lay jaayee nangam lay ko am moom kenn la keneen du moom di ci fay lu bari ñu di leen ko yëgleel ana ki nga xam ne nag moom fayu dara lu may dañ koy yëgleel noonu rek kooku sant dong lay def li feek ñi ngi koy tudd di tudd ay safaan sant dong la ñuy def te wóor nañu ne duñ dem ba di ko tudd ci lu baax naan naa moo ci raw moom waaye yàlla dana xam moo tax jàngoro yi fi jot a jaar yépp ci réew mi bu ci masaan wàcc ndakaaru rawati ab xeexoo du jub Tuubaa gars yi waa Tuubaa gépp dañu naan xeexoo ba wàcc ndakaaru Dakar tax koo jóg xam nañ ne day màggal si te nañ ko waxee woon lay demee lay firnde jëm mooy saa bu màgg jeexee mu jeex jër tudd seeni tur waaye ràññiku na lool saa bu màggal daan jub ñaar dañ ne nangam ñëw na Sénégal waaye waa Touba saa bu ñu commencé dégg dañu naan lee mu ak si Touba ndax magal gee ko tax a jóg waaye su ñëwee dañuy ànd ak moom màggal ci jàmm mu dem ñu dem. kon boog daawa moom ginnaaw kii daa waroon taxaw fu nekk di wax la muy wax ñu far di ko ko waxal di ko gën a siiwal te bokk yi daa am ñoo xam ne ki ñuy gën a nangul mooy ki ñuy yërëm am na ñoo xam ne fu ñu dégg ku ñu yërëm wala ku ñuy joxañ danañ dem ba xam tax ñu di ko joxañ te buñ fa buñ ñëwee moom duñ gis la ñuy wax moom yal na nu yàlla dimbali gën ñoo jox xoli muñ di gën a fàttali ne lu ñëw Sénégal tamit ab safaan kenn soxlawu ko ci benn dëkk waa Touba yaatal nañ ko na ñëw dugg xam nañ ne du fi génnaat te defaruñ ko moom bañ nañ doon defare ay defar ñu te gën a jafe foofu defar nit a gën a jafe fi may jeexale mooy daa am benn dëkk boo xam ne ay mbokk dañu faa dëkk ci biir réew mi am ci koo xam ne man loolu sax waruma ko wax waaye man maa ko woo téléphone ñuy waxtaan ci yeneen i soxla mu ne soo yëgoon doomu woo ma ne ko tax mu ne bala nga ma wàll ma ne ko lu ma lay wàll mu ne ma li may dégg Tuubaa jëru ma di ko tudd ma ne ko su fekkee noonu nga ko jàppee de moom yow danga may daal ci bokk gi ñu yàlla boole damaa defe woon ne man loo dégg tubaa ñoo koy bokk ñun tubaa de bu ñu ko déggoon ci sa dëkk yow te ak seegu fa ñun du ñu neex ndax dañuy bëgg loo nekk ñu nekk ca yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin